Nous avons avec ak chef de village avec ak municipaux avec sous-préfet ak gendarmerie avec l'ensemble de la population pour nous nous communauté pour coronavirus Nous gestes euh, élémentaire ah, utiliser gel des produits euh, virus waaye ñaari bi suñu fàttali leen également rassemblement yi maanaam ndaje yoo xam ne amul euh, mën nañ mën na ñàkk ndax feebar bi ni muy lawee dafa gaaw euh, fàttali leen ne coronavirus du caaxaan lu am la mu ngi ci biir réew mi coronavirus ni muy lawe dafa yaatu te coronavirus aussi mën na faat bakkan kon loolu baax na ñu xam ne dañu nekk ci gerte xeex ci xare hmm. xare nag boo ci nekkee ñëpp a war a nekk benn hmm. dànk comme ni wa Sénégal nek benn dank botu ci ginnaaw président Macky Sall pour xex mbir mi noonu la ñu war ba commune bu nek Sénégal population yi and également ak ki représenté président de la République le sous-préfet botu ci grand pour xex xeex bi loolu nag jël nañ ci ay matukay gis ngeen né mobiliser nañu la sous-préfecture mobiliser également la gendarmerie mobiliser nañu les chefs de village pour que justement euh, waxtan ak euh, euh, mbootaay yi nekk ci dëkk yi gis ngeen Notto Diobass am na tey lël yu fi nek lël yooyu yëpp waxtana ñoo ñoom également pour ñu arrêté ko parce que mën na nekk loo xam ne aussi euh, luy gaañ gendarmerie jox nañ leen ay tegtal pour que ñëpp euh, tënku ci charte bi ñu joxe parce que tamit lu ñu dul nangu tamit ci commune bi mooy benn nit bëgg a sànq population bi yëpp loolu euh, dañ ciy taxaw donc ku bëgg indi loo xam ne day indi ay jafé jafé pour les populations euh, commune bi sous-préfecture population yi seen bopp ñooy taxaw ñoy taxaw ndax dégg nga ni chef de village taxawee ñoom ñooy joxe d'abord tektal bu demee nak ba ëpp loxo chef de village ñun sous-préfecture ñu intervenir donc nañu wax askan bi né li mom ñun duñ ci teggi suñu tank té nañ ko def parce que kaaraange askan bi tax ñu ñu koy jël ma ngi ñaan ñëpp nak vraiment li nga xam mom le président Macky Sall woté ñu nekk ci li nga xam mom moom la suñu expert santé yi suñu docteurs yi woté ñu nekk ci ci waru cet

kenn du jóge fa nga nekk donc maa ngi euh, fàttali sunu mbokk yooyu ne wax leen ne vraiment épidémie bi li koy saafara mooy euh, nga bañ a euh, bouger ndax soo bouger di nga wàll sa bopp wàll sa njaboot wàll ñi la wër yëpp te loolu aussi day loraate donc nañ topp vraiment li waa santé wax waa docteur wax mooy ñu def quarantaine féete fi ñu nekk fañ fa bañ fa bañ fa déplacé wu. boo jëlee tey aéroport AIBD juróom ñaar téeméeri millions ak juróomi téeméeri. junne nit ñoo fi ñëw at bu nekk kon daanaka boo ko xaymaa euh, ay milliards yu bëri la bés bu yàlla sàkk euh, tëj nañ ko non seulement tëj nañ ko ci bitim réew mais également tëj nañ ko ci biir réew mi loolu alal bu bëri la waaye dama ne sànq également ne euh, kaaraange waa senegal bu teewee dara nekkatul farata kon lépp luñ mën lu ñu mën a am bu fekkee waa Sénégal waruñu li ñu mën am importance kon loolu vraiment may euh, encouragé Sénégal Nous la wax xeex bi ñu sumb ci coronavirus ñun waa Sénégal ni ñu dankaloo nekk benn suñu kilifa diine yi suñu jeunes yi gis nga ci étudiants yi ñooy dem def sensibilisation bi kon ni ñu nekk benn bu ko defee dinañ ko bu Nous ko économie kon loolu